li am solo fi ma jëm directement Ndella muy wàllu élection présidentielle ñu génn euh, Ndella gis nañ fi année année boo xam ni ci ginnaaw euh, Ndella Madior dafa takku donc daal ba ñu naan kii ñu ne ñu bëri dañ jàppoon ni lii daal ay ay kaf la Ndella du dem Ndella Madior dem nga am sax mën nañ ne mbetteel goo def ci gaañi ñu la doon xaare yi di ñëw Ndella Madior dem euh, ànd ak ak président Maître Madické bëggoon naa xam relation boobu lan moo tax Ndella dafa yorutul woon xaalis moo tax mu mu coalisé wala lan la non non non question wu coalition moom euh, waxtaan bu juboo rek la xam nga 2012 man maa nekkoon la seule femme tête de liste. waaw jaaxal naa leen bu baax. amoon naa sa sama place assemblée nationale dañ ma ko fokkati rek. waaw dañ ma ko fokkati parce que la la parité moom dañ ko doon appliquer au plus fort reste et puis euh, dugal ma si biir waaw yàlla def na loolu mu ngi suñu ginnaawati ndax boobu communication bi c'était 20 millions. ah donc sans compter le budget de campagne mu nekkoon expérience bu am macha allah kon sama turu politique bi dama ko jënd waaw facture bi dafa cher waaw dama ko jënd dafa am ñoo xam ne parfois euh, ndeysaan euh, am na benn anecdote dinaa la ko nettali euh, sama xaritu APR yi temps yi invité nañu les femmes Benno bi ñuy invité les femmes Benno samedi bi passé Euh, ñi amoon ñoom ay euh, quelques petits problèmes d'organisation mu am ñoo xam dañoo teel a génn 6 heures du matin ñoo env ñëw ñëw kii salle bi envahi envahi salle bi léegi kii bi sécurité bi ñëw génne salle bi ñëpp bu mu génnee salle bi ñëpp nag léegi ñu rangloo leen xam nga genre c'était un haut panel donc euh, bu waa convergence des cadres de la l'APR ñoom ñoo ko organisé woon léegi euh, rang bi gudd presque un kilomètre quoi rang bi gudd pour euh, les militants de la l'APR ñun on était des invités des invités de de des femmes Benno 15 la ñu tànnoon si ñun pour représenter les femmes Benno pour ñëw sagal Abdoulaye Diouf saan mi ko organisé woon te président de la République nekkoon fa pour màggal bës bi léegi man ñu ba ñëwee gaare sama oto fi ñu ko war a gaare dama ne dama avancer tout droit parce que je me considère comme une femme euh, invité kon il est hors de question que may rang ku ma fekk samay rang ay un kilomètre ak yooyu lan la may wax ah ne serait-ce que sama statut femme de presse xam nga journaliste yi ñoom dañuy rang <laughs> dañuy foog nga bàyyi lañ def seen liggéey ah donc euh, femme politique bi ma doon. donc ñu ñu war ma kaa nangul dégg nga wax ci donc j'ai subi une petite violence la bas d'accord faite par une femme d'ailleurs ne ma da nga war a rang comme ñëpp nga sànq bi nga ma ne y a plusieurs formes de violence faites aux donc di nga gis benn nit boo xam ne da xool à distance ñee la ah bugg laa bugg laa euh, nga am du am ko occasion jàkkaarloog yow rek bugg laa provoqué mu nekk loo xam ne euh, choqué woon na ma waaw choqué woon na ma alors que li ma fa bëgg expliquer tey mooy je suis une femme politique waaw duma moroomu gaay yi dégg nga wax ji je suis une femme politique la facture a été très chère laay duma seen morom waaw waaw dafa amaat euh, voilà du ma ma ne waaw su fekkoon xadar bi balaa noonu laa meloon ba léegi kon mu demee neneen mais dama ne rek gars yi duma seen moroom te su ma nee duma seen moroom dama xam ne quand je suis une politique boo xam ne facture ba dafa cher waaw kon man genre organisation yi su amee mu am problème d'organisation. ku ma ràññeewul seppi ma ma ràññi sama bopp seppi sama bopp waaw ma ràññi sama bopp seppi sama bopp waaw ndax je suis une femme politique et je fais partie des rares ñoo xam ne suñuy wax élection dañ leen siy tudd dañ nga wax ji dañ leen siy tudd voilà donc euh, Ndella Madior euh, sera toujours la Madior en meilleur dégg nga avec un caractère boo xam ne dama koy dama koy gën a di parfaire yow kenn du la nettali la Madior Diouf ndax da nga dund Ndella Madior Diouf 2012 2000 2002 2001 ah ba si kaw. ba fu ñu nekk nii léegi dama du stratégie c'est l'âge non non xadar bi day wàññeeku yow di nga benn stade boo xam ne tu deviens calme non non non je suis plus euh, tàngoor naa jër. waaw léeg-léeg ma avec le temps avec le temps on se calme. voilà on prend de l'âge mhm. et après dañuy dañuy ànd ak dal. waaw dañuy ak dal te mu nekk lu am solo. gis naa la ci plateau ak euh, euh, élection présidentielle yi Ndella da nga xeex bu dugg boîte vocale. Mhm. Euh, ci maître Madické mais dama jàppoon ni moom élection da koy da koy ñëw rek dóor ko mu daanu. parce que mhm. bu ñu la yóbboo plateau ñu bari dañu ñemee jàkkaarloo yëpp. waaw ni nga doon xeexee dafa métti Ndella sa relation ak maître Madické balaa ñuy sori. bon maître Madické Niang bu nekk sama càmmiñ bu baax. moo doon suñu leader si élection présidentielle bi passé ñu gunge ko gunge bu rafet. mu mu accueillir ni accueil bu rafet euh, ma jóge fa jógin bu nice bi ñu décidé euh, ba nga déposer recours su élection bi passé arrêté lépp. te ñu yàgg di xeex loolu moom fi jëlee. loolu la fa jëlee. Hmm. non non euh, waxtu bi ma jotoon. waaw sama passage si opposition. sama jaar-jaar si opposition. waaw. donc euh, c'est foofu moo doon fin bi daal. moo doon fin bi ndax jaar naa ak opposition quand ba rendre compte su fekkee lii la. su fekkee nii lañ koy terminer kon jarul may ma may opposé wu. d'accord yi automatiquement si euh, voilà parce que kañ ngeen laa ko defee. si saa si. parce que j'étais pas d'accord. kenn boolewuma si stratégie boobu pour que mu am euh, ñi kay benn dañu waroon waxtaan. introduire suñu recours recours lu ñu yàlla jox ñoo xam ne lii la waaw képp ku def élection te déposé loo recours te waroon déposé recours jaratu sa élection suy ñëw nga présenté da ngay sonna nit yi. kon Ndella fu mu nekk actuellement tey ñu euh, waaw je fais partie de la mouvance présidentielle léegi. mais moom dafa gaaw quoi génn bi bi moo gaaw quoi en fait dafa. bañkat la waaw bés bi bi euh, quand le conseil constitutionnel di di di di proclamer résultat yi. avant que président Macky Sall. di mm-hmm. def discours am. ci laa génne. pour sa xel nekk est que euh, ma c'est que suñu waxtaan moo moo mujj woon sotti mujj woon sotti tey il fallait coûte que coûte ma féete fenn. Mm-hmm. et après rëccu ma li ma ànd ak Madické Niang ñu ànd ànd bu rafet waaw fin bi nag moom ni ñu ko terminé man mosuma see d'accord ah et puis j'ai marqué le coup je suis sortie je partie. ki nga xam ne monsieur Ousmane euh, Ousmane Tanor Dieng euh, muy ki nga xamante ni wax dëgg yàlla euh, mu mel ni amoon ngeen relation nelawam fekk na la foo xamante ni nekkul nekk woon sax ci biir Ndakaaru jot nañ la par téléphone. nga def mhm. jaale jaale bu rafet nga dellu si tuuti tuuti xam ne à travers jàmm ji info ñu xel ci sa dem si yàlla Ousmane Tanor. waaw yàlla na ko yàlla yërëm mu nekkoon nit ku baax. waaw man gis naa ne que moom c'était un homme très calme. très très calme il a toujours été d'ailleurs et puis euh, sama premier dem mag contribué contribué woon na si c'était en 1998 boobu mi ngi woon ak Abdou Diouf donc euh, on a eu des relations très correctes mu nekkoon euh, koo xam ne vraiment kenn mësu ko dégg si lu ñaaw euh, si xuccoo euh, un grand homme d'État voilà donc euh, disparition bokk naa si ñoo xam ne métti na leen métti na leen torop torop torop voilà. l'avenir de parti socialiste en tant que sa sa je suis pas du parti je suis pas socialiste donc gis naa ne kontaan naa trop si Aminata Mbengue Ndiaye li ñu ko joxee euh, au conseil euh, donc HCRT ah HCCT voilà donc mu nekk loo xam ne am na solo dañuy sagal jigéen ñi. ah te moom jaar-jaaram euh, vraiment euh, dafa exemplaire euh, parti socialiste comme tous les partis du monde ah nul n'est irremplaçable donc ñii dañuy dem ñii di ñëw donc beneen génération ñooy ñëw installé wu Euh, au fil des années Senghor mi fa nekkoon nekkatu fi Tanor Dieng moo fi nekkoon nekkatu fi donc euh, progressivement donc Sénégal nu muy évoluer noonu la nit yu nekk ci parti politique yëpp di di di évoluer c'est c'est c'est la vie donc euh, Djibo Ka dem na donc Dansokho ko dem na ñu dem ci seen politique bi ndeysaan bëri nañu donc yàlla na fi yem te yàlla na yéex.

voilà donc après maa ngi koy euh, toujours à Tataguine et après euh, maa ngi saxal benn fële à Simal voilà donc di jaxasoo population ba fa nekk installé nañ soo benn rajo Simal FM euh, buy émettre ñu fay tabax tamit benn hôtel et puis di liggéey suñu waar parce que foofu c'est la porte d'entrée des îles du Saloum foofu daal laa gën a yëngatu fi ma bàyyi ko sama rakk bark Euh, ban jàngat nga am pour taxawaayu xalifa ëllëg yow gis-gis. je vais revenir toujours je suis pas du parti socialiste donc euh, gisoon nañu que coow li bëri woon na euh, Khalifa Sall bu mu génnee def na tournée am léegi je pense qu'il est en France en train de se reposer et puis euh, il a son chemin ku gis nga politique bi ku su nekk sa jaar-jaar. ku su nekk sa jaar-jaar et tout voilà donc euh, c'est un grand homme d'État. il va se battre pour euh, essayer de participer si élection yi di ñëw donc on va voir comment ça va film boobu naka lay déroulé woo. <laughs> affaire bi c'est des c'est des épisodes quoi. c'est des épisodes voilà.